donc euh, bu ñuy dugg ci événement religieux yi comme euh, korité tabaski tamxarit ay euh, période yoo xam ne production mbalit bi dafay élevé moo tax le ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique à travers l'unité de coordination de la gestion des déchets solides day mettre en œuvre ay plan d'intervention de nettoiement pour couvrir assurer le service public de nettoiement Euh, pendant cette euh, période pendant avant et après les événements religieux moo tax euh, si Korité bi ren donc ñu UCG déployé ay moyens logistiques camions pelle mécanique ay tasseuses pour assurer la reprise de la surproduction des déchets pendant avant et après la Korité 2020 donc moo tax si euh, da ciy yokk ci pandemi bi également moo tax ñu gën a fagaru renforcer le le dispositif moyen et logistique ba nga xam ne ni dépôt yi du séjourné lu yàgg ndax euh, euh, feebaru mbas bi donc àndul ak mbalit donc moo tax ñu renforcer dispositif yëpp pour assurer le service public de nettoiement conformément aux orientations du ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique